ginnaaw bu Touba ca kanam yëkkatee 45 millions de francs CFA def ko ci ay jumtukaay yoo xam ne dañ ciy xeexee jàngoro jii di coronavirus fii ci Touba Mbacké door nañ séddale léegi ci mbooleem bërëb yi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bi tañ war leen ko jébbal lu nu mel ñu ngi ko dooree ci jumaay Touba ji ak daayira Muxaddamatul Xidma bi nga xam ne ñoo yor lépp lu jëm ci organisation jumaa ji ba ci mbooleem kër yi nga xam ne ñoo wër jumaay Tuubaa ji morgue bi ak barabu suturlookaay yi nga xam ne ñoo fi nekk jumaa yi nekk ci dëkk bi ba ci jàkke yi ñoom ñëpp Tuubaa ci kanam jébbal leen lu toll ci fukki junni ak benn ak ñeenti téeméeri bouteille Madar ak juróom-ñetti junni ak ñaar ak juróom-ñetti fukki bouteille eau de javel ak junni ak juróom-ñetti fukki alcogel noonee it lañ ko jébbalee mbooleem kër Serigne Touba yi nga xam ne ñoo nekkee ci dëkk bi ginnaaw barab yooyu it mbooleem structure sanitaire yi nga xam ne ñoo nekkee ci dëkk bi di bërëbu fajookaay yi muy hôpital Matlaboul Fawzeyni bu Ndaamaatu centre de santé bu Jéemul ba ci centre de santé bi nga xam ne moo nekk ci Mbàkke yemuñ ci ne dañ ko yaatal ba ci centre d'opération d'urgence sanitaire bi nga xam ne moo nekk ci Daarul man Mannaan dañ fay internet ñi nga xam ne ñoo amee jàngoro ji ba ci hôpital militaire bi nga xam ne moo nekkee ci héliport bi ñu jébbal leen ñoom mboolem structure sanitaire yooyu lee lu toll ci ñetti junni ak ñaar téeméer ak ñeent fukk bouteille yu madaar ak junni ak juróom-ñetti téeméeri bouteille eau de javel ak juróom-ñetti téeméer ak ñeent fukki bouteille alcogel Touba ca kanam ba léegi wéyal séddale gi ne dem na ci orphelinat Maam Jaara police bu guy mbind escadron gendarmerie bi nga xam ne moo nekk ci Touba poste gendarmerie bu Touba ak bu Ndindi sapeur pompier yi service di d'hygiène ñooñee ñëpp jàppale nañ leen ci xeexum jàngoro ji ñu jébbal leen lu toll ci juróom téeméer ak fukk ak juróom yu madar ak ñeenti téeméer ak juróom-ñett yu eau de javel ak téeméer ak ñeent fukk ak ñeent bouteille alcogel Mamadou Fall di logisticien wu centre des opérations d'urgence sanitaire di logisticien wu ni ñu tuddee système de gestion de l'incident mais au niveau régional à Touba. tey Touba ca kanam ñoo ñëwoon gane suñu ñu gi doon appuyer si la riposte au niveau local te loolu ñu ngi ko jëmale exclusivement ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñi ñu jàpp ne ñoo tawat te ñoo tawat nekk ci centre de traitement épidémiologique bi ñu def fii nii ci hôpitalu euh, Daaru Mannaan ñoo indi un lot de alcogel ak eau de javel ak li ñu naan mada muy détergent gel yi wax dëgg yàlla muy taxawaay bu rafet te am solo te mun ñoo jàppale bu baax a baax ci li ñuy def di woote waat un appel à tout le monde rek à l'éveil et à la conscience ngir nit ñi mën a fàttalikuwaat lan mooy recommandation yi ñu jox ministère bi jox leen ko loolu bàyyi ñu fi ñun ñi te mu doon li nga xam ne mooy njëriñu askan bi yëpp. ñu ngi sant. tey suñu gan yi ñëw fii indil ñu ay ndimbal ngir ñu mën a taxaw malade yi malade yi nga xam ne yéen a ngi leen di dégg muy wàllu feebar bi di feebaru coronavirus Touba ci kanam yëkkate ay ndimbal yu am solo euh, ndimbal yoo xam ne ay produit la pour raxasu lu deme ne madaar liquide ak ay masque ak alcogel ñuy rafetlu geste bi ni ñu ko defee ak ci waxtu wi ñu ko defee muy loo xam ne dañ ko yittewuloon trop trop ndax liggéey bi fan yi dafa laaj ñu yokk set gi yokk maanaam liñ daan jëfandikoo ci ay produits ngir mën a aar suñu bopp aar malaat yi aar askan wi yëpp ngir ñu bañ a am feebar bii nga xam mooy feebaru coronavirus. kon ñu ngi dolli di sant Touba ci kanam ci taxawaayam ci mbir mi xeex bi nga xam ne ñu ngi koy xeex feebar bi. di jël cant gi di ko teg ci loxo sëñ Abibu Mbàkke sëñ Fàllu ngir mu àggale ñu ko ñi nga xam ne ñoo ŋànk Tuubaa ci kanam e, di sant askan wi yëpp di ñaax nit ñi ñu gën a taxaw ci mbiri Tuubaa ci kanam ngir liggéey bi ñuy def e, man la Pape Malick Diémé e, chef service administratif et financier hôpital Ndamatou maa ngi wax ci turu docteur Souran di remercier Touba Ca Kanam ñi ñëw jàppale ñu en nous apportant kii euh, ay produit désinfectants eau de javel madar ak euh, ak kii solution hydroalcoolique en tout cas ñu ngi leen di gërëm lu bëri parce que li ñu soxla la période bi parce que hôpital dafa bokk si structure yi nga xam ne dañuy recevoir du public te box na baax na nit ñi di am ay euh, di am ay solution de désinfectant mais aussi di am hygiène des mains te produit yi ñu andi yëpp vraiment si cadre boobu lay dugg ñu ngi leen di jaajëfal bu baax. donc si turu médecin colonel Niang mi nga xam ne moom mooy jiite euh, hôpital bi ñu fi indi vraiment ñu ngi gërëm waa Touba ci kanam ndaxte li ngeen ñu indi nii lu ñu soxla la ndaxte ni ngeen ko xamee fi mu toll nii dañoo lekk ci dañoo nekk ci jamono joo xam ne ñu ngi ñu ngi ci jamono yi bu am benn jàngoro bu fi law. te tamit jàngoro jooju produit yi ngi si jox am na si njariñ parce que day loo xam ni day jëm ci mbirum cet gi ah, te tamit gis nañu yéen vraiment loolu pratiquement yéen njëkk a nekk ah, kuréel bi gën njëkk a ñëw indi indi ndimbal bu toll nii ah, loolu daal vraiment ñu ngi leen ci gërëm di leen ci sant te tamit ni di leen xamal ni liggéey bi moom lépp li ngeen ci yaakaar daal ñu luñ ci mën a def nañ ko ci def moom mu jëm ci mbirum paj mi boobu ba léegi door nañu ni ñaa ngi ñëw te tamit lii ñoom nañ ko bokk ak ñoom kër gën leen a mën a dimbali pour nga xam ni mbirum cet bi ñu gën koo toppatoo donc daal ma dellu siwaat si turu waa hôpital bi yëpp di leen gërëm di leen sant te lii vraiment lu am maanaa la te lépp li ngeen ci yaakaar yàlla leen ko yàlla defal si barke sëñ bi